Nous avons une ngi ci association de tudd belle association de bu nekk bon ñun Dakar mais association de amal association bi pour xool naka la ñuy def pour jàppandite ak suñu suñu suñu suñu mbokk waa askan daal ci defar leen ay teen ci nga xam dañ ko soxla ak yeneen mbir yoo xam ne vraiment dina yombal dund bi ci loolu nag moo tax ñu ñëw fii tey pour defar leen teen bi ginnaaw bi ñu ko ñaane bi bi demande bi existe ñu am beneen euh, suñu yeneen beneen mbokk yoo xam ne beneen association boo xam ne moo tudd Au Pain et ñoom ñoo ñëw financé seen teen bi dafay jaadu nag su fekkee lancé nañ benn teen ci benn place ñu dem xool ko xool travaux yi su ko defee ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ñu wan leen ne liggéey bi tàmbalee nañ ko. kon mbooloo mi fi teew yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen baalu ak di leen baal aussi yal nañ a boole baal yéen ñi nga xamante ne yéen a ñu wàllu si indi ñu teraanga bi ñu ngi sant yàlla gërëm leen. war leena a gërëm aussi ndax li ko wund ak li ko waral moo di li nga xamantene amuñ ko mënaluñ ko suñ bopp ngeen mënal ñu ko indi ko fii ci dëkk bi ñuy wax village bu Biibaan euh, ci bés bi vraiment dañuy rafetlu programme bi masawu leen seen coono ndax distance bi ngeen jógee ak fii vraiment ay kilomètres yu bari la mais population bi jaral leen ko dëkk bi jaral leen ko mënuñ leen fay mais yàlla mu leen mën a moy yal nañ yalla fayal fay bi gën ci fay bi en réalité ndox sax ñàkkuñu ko mais ndox bu ñuy naan mom mo xaw ki ndax ah, ah, ki ah, robi robi robi amna fi mais ndoxu naan nak xam nga su fekke ne lak bi nga xamantene jog dafa jog jégué fatik fi ndox mi robinet bi wala dafa salé mais amna benn ama bu nek fi suñu ginaaw ci dëkk bi la bok ñukoy wax téla fofu amna ndox bu neex paran fa ñene dañu tak saret di wuti fofu ndox waaw mais li fekkene def daf ñuy jégg nak vraiment koku dafa am solo dafa am jëriñ dafa and ak jamono ñu rafal ko bu baaxa baaxa baax vraiment jafé jafe fofu le kay may a trop yam kay mbaru njalteen toy njalee yamu ñak fofu nda wax deug imbega mbega nga nakene kene to i sawara neena jafé bi ngan koy mayu agar men. motax ma sa kaaga taxum sawar ten a paax sawaram ten to ya roog fa barke fa pa tanu ya sam roog fa barke fa pa damta den no ku da na ko a faaxna rek in way damta den a paax a paax a paax a paax in ci cin rek ka gar na ɓay in ino mat xan inda ma paax kaga jara ngeen jef Donc voilà, au pain sourire, le contrat avec vous, c'est aussi ça. Le contrat, c'est de vous montrer de vous diriger vers les populations qui sont dans le besoin, surtout en manque d'eau. Aussi de coordonner les travaux, de venir euh, surveiller ce qui se passe sur le terrain, voir si les projets se passent très bien. Donc ce puits de Rafida à Makin est en cours, est en euh, très bonne voie. Euh, on ose espérer, là que ça va finir très très bientôt. Donc l'eau commence à sortir et déjà les, les populations commencent à s'en servir. On est le premier ramadan, donc c'est une très très bonne chose de savoir que les populations commencent à s'en servir. On demande à Allah d'accepter pour vous et pour nous. Voilà, donc il euh, ne faut pas hésiter, vous les sympathisants de l'association ou les membres de l'association, il faut savoir que le petit euro pour acheter la baguette de pain, euh, symboliquement, ça peut être euh, très minime à vos yeux, mais sachez que quand il y en a mille qui en donnent, ça fait 1000 euros, déjà ça commence à donner de l'espoir et donner du sourire comme vous êtes en train de le faire pour cette population.